société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen di may de presse tali na jàmm ñu ànd xëy yër yéen ñu xëyanto yéen i kaay gi di réew mi ko di jeex xëy di ñu xibaar naan ñu institution bii di bu ñu ko indiwaatee ci Sénégal bu mu leen bett ndax nag kii nga xam ne mooy directeur général bu RTS di Racine Talla maire bu Wakhinane Nimzatt moom nag nee na indiwaat lii nga xam ne mooy Sénat lu ma a nekk la ndax nag Sénat kër la koo xam ne maanaam gu baax la li mu mën a yokk ci Sénégal bëri na te njariñ li bëri na loolee mooy Racine Talla te nag bu ñu fi jéemee andiwaat lii nga xam na mooy Sénat ay coow rek la fi jura ndax lii nga xam ne mooy a ACCT maanaam askanu Sénégal saa su nekk ñoo ngi laaj ACCT lii nga xam ne moom la Aminata Mbengue Ndiaye jiite maanaam au conseil des collectivités territoriales lan mooy njariñ li ma ne la gis nga assemblée nationale gii sax askanu Sénégal ñu koy ŋeññi waxuma laa nag ñuy waxaat xawma waxu andiwaat lii nga xam ne mooy Sénat loolee moom est-ce que askanu Sénégal nag ko mën a nangoo réew mi ko di jeena bu ñu waxantee dëgg bu ñu waxantee dëgg maanaam Sénat ci boppam moo amul lenn loo xam ne mën na koo yokk ci Sénégal waxuma nag ay waxu démocratie ak maanaam yu si ajo bu ñu fi andee Sénat institution yi dina mel ni tulleeg man li ci réew mi yéen a kaay gi de la témoin xëy dañu xibaar naan ñu assemblée nationale altine ji nga xam ne moom la ñu dëgmale la ñu koy installé la ñu koy samp waaye nag Macky Sall jamono ji bu nelawee du nelaw ba yàndoora moom Macky Sall la nga xamante ni moo ko waral maanaam député yi si boppam Macky Sall amul ci ñoom yaakaar maanaam à cent pour cent te nag bokk ci benn bokk yaakaar ci week-end bi dañu leen di yóbbu fi nga xam ne mooy mbuur sa sali ngir bu altine ñu man leen a gurgur dugal leen ci benn bus yóbbu leen directement ci assemblée nationale loolee am nay député yoo xam ne dañoo lànk ba tëdd sa naaj wa ne ñoom du ñu ko def maanaam daal ñu leen di yóbbu sali di leen fa denc di leen fa confiné altine ñu leen di gurgur maanam ñoom am na ñu ko nanguwu la ci député yi boo yokkee nag député yi parti socialiste yi nga xam ne am na ñenn ci parti socialiste ñoo ngi wane seen bopp loolee moo tax Macky Sall jamono ji xel mi ma ngi jeexi jaaxa yéen vingt-quatre heures Bougane Gueye Dany nee yi nga xam ne yéen a bokk ci benn bokk yaakaar waru leen a ànd ak Macky ci lii nga xam ne moom la nekk ndax nag Macky bu ngeen ko fexeelee ba votal ko ci assemblée nationale yéen député benn bokk yaakaar yi na leen leer na ëllëg lépp loo xamante ne am na ci réew seen loxo ma ngi ci biir te nag Macky Sall mbirum ñetteelu mandat bii rek war naa tax yéen député benn bokk yaakaar yi ngeen war a lànk ba tëdd sa naaj wa bañ a votel Macky Sall ci assemblée nationale yéen a kaay gii di lay Zeko Ousmane Sonko mi nga xam ne dañu waaw naan Ousmane Sonko candidature Lamine caam bu PDS lay jàppale ngir mu jiite assemblée nationale loolee nag Ousmane Sonko weddi na ko ndax ñi nga xam ne ñooy waa Yewwi Askan Wi dañu doon amal nag ab réunion virtuelle waaye Sonko neena loole nag maanaam ñu may waxal du dëgg beneen bi Ousmane Sonko nee na candidat opposition bi ngir jiite assemblée nationale ci coalition Yewwi Askan Wi maanaam fa lay jugee bu fa jugee wul nag maanaam ànd bi moom nañu ko daal di dakkal ki nga xam ne nag mooy Ahmed Aïdara moom nee na muy taw muy naaj maanaam bu ñu suna bu ñu saañum ngeer candidat la yéene kaay gii di Vox Populi ab jege ñaale Barthélémy Dias nee na Bart dañu koo wor dafa am ñoo xam ne ñoo ko trahir ci lu jëm ci candidature am ca assemblée nationale yéene kaay gii di L'As ak Le Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu Europe jamono ji Europe teg nañ bët Sénégal ma ne la gis nga Europe ni ñuy neexalee Sénégal <laughs> jéggi na dayo ci lu jëm ci sunu wàllum ressources naturelles yii nee ma gaz nee ma pétrole ma ne la journal bi nee na gis nga Allemagne ak Pologne ak waa Union européenne maanaam ñoo ngi charmer Sénégal Sénégal mooy bañ waaye nag ndax Macky Sall dina xam nan lay doxalee ak nasaraan sii yéen a kaay gii de la Soleil nee na coopération am na diggante Sénégal ak Pologne maanaam am na déggoo ñaari protocole yoo xam ne Macky Sall signé na ko ak njiitu réewam Pologne waa dana danañu abal senegal lu toll ci soixante-cinq milliards près la yéen a kaay gii de la Quotidien nee na sa Allemagne dafa am benn journaliste bu laaj Macky Sall na ko waa yow Macky Sall yow mbirum ñetteelu mandat bii ñuy wax Sénégal yow Macky est-ce que nag da ngaa bëgg a def beneenu mandat ci Sénégal Sall na ko duma tontu comme sa Sénégal lañ ma laajoona ma ne leen nii wii nii non du ma ñëw ba fii ci Hollande ci Pays-Bas ngeen may laaj ma ciy wax du ma ci tontu la ma waxoon Sénégal moom laay wax fii yéen a kaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu en tout cas Sénégal li mu amee ci ay bor bëri na trop trop trop Sénégal dafa leb ba maara day ma ne la niveau endettement bi autour de 68 pour cent la yéen a kaay gi di Dakar Times nee na comité consultatif rédacteur du rapport 2021 2022 ma ne la li mu wane mooy Sénégal Sénégal jamono ji bokk na ci réew yi deltu ginnaaw ci lu jëm ci wàllum développement ma na la rapport bi loolu la wane de dafa wane ne Sénégal maanaam ma ngi deltu ginnaaw ci lu jëm ci wàllum yokkute yéene kaay gi de la turbine xëy duñu xibaara naan ñu nag jafe-jafe yi nga xam ne moom la askanu Sénégal di dund Macky Sall la toroxtaange gi nga xam ne moom la askanu Sénégal di dund Macky Sall la ma ne la jaaxle gi nga xam ne moom la askanu Sénégal di dundu Macky Sall la xiif bi nga xam ne moom la askanu Sénégal di dund Macky Sall la ma ne la ndool gi nga xam ne moo nekk ci réew mi Macky Sall Sall la ma ne la pêcheurs yi nga xam ne jamono ji amatuñu jën ci biir géej gi nekk ay chômeur Macky Sall la ma ne la gis nga yokkute gi nga xamante ni moo am ci réew mi loole lépp Macky Sall la yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu magistrat Bassirou Ndiaye mi nga xam ne moo nekkoon njiitul cour d'appel bu Ziguinchor te ñu doon wax ne dafa bokkoon ci gaal gi nga xam ne moo tëmboon ca Podor mujjee nañu ko gis waay dafa génn àdduna dafa ñàkk bakkanam yéen a kaay gi di libération xëy ñu lu jëm ci wàllum inondation yi am na ñoo xam ne loru nañ si ndax am na lu toll si ñetti fan yoo xam ne juróomi nit ñàkk nañu ci seen bakkan ci inondation yi courant de leen a maas yéen kaay gi di sunu làmb xëy dañu xibaar naan ñu combat tafaatin ak Bombardier nërta nekk nag combat bu yomb ndax kii nga xam ne nag mooy tafaatina moom nee na daanoon naa Bombardier dóor ko ba ñu jëlee ko ci samay loxo waaye nag bii nga xamante ni nag moom la ñu war a sëggaat bëree boobee nag moo nar a gën a doy ndax dinaa ko duma dinaa ko daan société nationale d'électricité bu Sénégal